commencé ba noppi boo gisee présidium bi ñu teg ko mhm. nga gis ña fa toog ñooy doon invité ñi muy àndal ñi nga xamante ne ñooy jiite bànqaasu parti bi ak ñan mhm. dinañ amat xam ne am na beneen configuration bu yees bii am ci langue politique bi notamment bi concerné mhm. Benno Bokk Yaakaar ce qui est sûr et certain mooy dina am ñoo xam ne tey yaa ngi leen di gis assemblée national bii di ñëw bu Amadou Ba di lancé da nga leen fa gis wala dana leen récupérer ñu ànd ak moom ci parti bi kon su noppee lan mooy dis bi Benno Yaakaar bul fàtte ko allié yi gën a mag Benno Bokk Yaakaar. Mm. seen responsable yi gën a kawe ñi si ëpp Amadou Ba la ñu àndale jël. Mm-hmm. kon fi ñu toll nii camp Benno pour man ñoom ñooy gën a subir fracture départ Amadou Ba bi. parce que challenge bi ak solo bi xam nga fu mu doon nekk. Mm. naka la ñuy def ba réunir toute la Benno autour de Amadou Ba. parce que pour man foofu la foofu la mbir bi doon nekk. naka la ñuy def ba réunir autour d'une personne bu fekkente du Amadou Ba. Mm. mais su Amadou Ba demee forcément il va partir avec certains responsables. Mm. ñeneen ñi dinañ tok ne ñoom dañoo fidèle à Macky Sall léegi Amadou Ba ñaata la yobbu ñeneen ñu tok ñaata la ñuy doon. Mm. légui buñ diviser seen efforts ñu dem ci élection législative mi raw gaddu affaiblir nañ seen bop te yeggaguñu. manam raw gaddu la tay ji dañuy ñëw fi ci Dakar ngeen sam fi seen ndënd ngeen di xëccoo sept députés mais buñ leen rawee. 15 voix sax jël nañ député yëpp. Mm. amoo benn député ngeen des ngeen demande ak ainsi de suite ainsi de suite. Mm-hmm. donc système la boo toujours dafay dafay dimbali ki nga au pouvoir. parce que moom mooy am doole di ñaar jël na député donc bu liste nationale bi département yu a kon tey ji Amadou Ba départ gi muy def nii bu ko lancé a constaté waat lan moo des bennoo ak bennoo lan na am loolu mooy constat mm nakala la Amadou bari def di pour meuna exister ci espace politique bi exister la wax mm. c'est la première fois mu nar a leader. Mm. leader politique. Mm-hmm. musu koo même fi Parcelles Assainies leader pas pas parcelle mais au niveau qui Benno. Mm. biñ ñëwé fii gis nañ xëccoo bi amon di Dakar digganteem ak Diouf Sar ba il a fallu que voilà Macky Sall intervenir nangam ak nangam chaque jour bu ma saan jàkkaarloo ak yenn opposition yi. gisuñu fumu amé ben ludul ludul da fay da fay après Macky Sall moy intervenir pour le mbir yeeg yu ni mel. légui bi pa ndax amna na doole yi nga xamante mën na taxawé taxawee jàkkaarloo ñi nga xamante moy euh, parti au pouvoir surtout mu don ko xamante xamul opposition. manam bi moy sa expérience bu jitu nga wara porter manteau chef de l'opposition

mu bañ a dem ci logique ñoom buggaan logique biñu ñu jël mhm. maanaam logique gatsa gatsa il faut essayer de frayer un autre chemin bo xamantene ñi nga xamantene dañu jël gatsa gatsa conjugué ko au passé té d'accord ñu ak régime bi dina ñëw dal ci yow manam dañuy gis ko xamna ay idée la am mhm. débat lay indi bu d'accord bi ne d'accord ma dara am defuma ni sans avec sans sans y aller avec une virulence bo xamantene ne kenn du ci mhm. d'accord bañ ci dem ak yenn kàddu yi xotti worma yi bañ ci dem ak ëppal bañ ci dem ak zel bañ ci dem bañ ciy gisee coloration t wala singali te loolu pour man pour nga pour pour nga réussir ko dafay laaj beaucoup de calme beaucoup de retenue su ko defee nga mën a am li nga yaakaar ci opposition bi mais bu ñëwee bëgg dugg dugg ci dynamique gu changer kanam. parce que mm. Amadou Ba déjà kenn xamee ko logique boobu. Mm. kenn xamee ko defante kenn xamee ko nangam ak nangam dañ ko xamee comme pour man bu buñ ko jéemee dugal ci bopp bi na ko léegi opposition nga nekk rek Amadou il faut gisoo bi muy ñëw. di di gagné Ablaye Wade ak taxawaayam. jéemu koo changé benn yoon fekkoon na fi Idriss Seck fekkoon na fi parti socialiste fekkoon na fi Moustapha Niasse ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dajawoon nañ fi mm-hmm. mais changé lu lu ñu doon wax à l'époque noonu Macky dafa yaru Macky xam na état nangam ak nangam boolu ci boolu ci wax ju bëri te noonu lañ ko joxee Ousmane Sonko bi ñu koy jox pas Ousmane Sonko Bassirou Diomaye bon duo parce que Sonko Diomaye si ñoom ne da koy du ay masque gis pour pour dem après

élection législative yi ñu jëm mooy wane ne Amadou Ba mooy yaakaar opposition wala du yaakaar opposition. Mm. parce que bu ñu fa jógee ki ëpp député. Mm-hmm. ki ëpp député mën nañ jàpp ne nag jamono ji nag moo téye opposition bi. Mm. parce que bu fàtte ne présidentielle bi ñu ciy génn Amadou Ba dafa am loo xamante ne doolay Macky Sall daf daf dafa am ci euh, score bi mu am. Mm-hmm. doolay Macky am na ñoo xamante ne yàlla ak Macky moo tax ñu votel Amadou Ba bu doon mm. Amadou Amadou kese kese duñ ko mës a votel. léegi ñooñu bu ñu seen ay voix ñaata la Amadou dese. lo xamante ne Amadou sa personnalité. qu'est-ce mhm. ñaata le mën a am. Mhm. loolu tey après élection législative moo koy indi légui nak suñ ci génnee su boba ci la xam lan la lan la lan la mën a mhm. Amadou lan lay peser parce que jiite na ben liste dem na élection présidentielle ñaata la am c'est pas toujours évident. gis nañ fi exemple Abdou Mbaye il faut que mu mu mu xam loolu aussi Abdou Mbaye nekkoon premier ministre neexi tubaab am ben taxawaay mais Abdou Mbaye n'a pas été un politique. Amadou Ba tamit amul ben étoffe politique bi. ñàkk étoffe politique boobu man laa koy tiital. Mm. parce que ak lépp lu ñu mënti wax diriger liste jiite euh, jiite liste dem campagne euh, proposition yi euh, joute verbale yi nga xamante ne da ngeen koy da ngeen da ngeen da ngeen koy sànnante yooyu yëpp di ci am yooyu yëpp ngeen di war koo séqante campagne yi nangam ak nangam yooyu yëpp nga war ko dékku ba génn ci élection yi am benn résultat bi est-ce que dina ko mën. Mm. loolu ay questions yu ñu war a mën a poser la tamit parce que nekkuloon benn politique xam nga boo delloo ci profilu premier ministre ñoom ñëpp da ngay gis ne euh, daanaka dañ dañu ñoo xamante ne seen politique daawul demee noonu. Mm. mais bu ñu duggee ci poste bu ñu génn rek dañ ciy génn ak benn yëre politique bu diis. Mm. excepté quelques-uns boo jëlee Mohamed Boun Abdallah Dionne duggoon na ci mais après bu ñu génnee gis nañ ne politique mooy loo xam ne comme làmb la. Mm-hmm. gis nga boo ko fooweewul boo ko fooweewul boo moytu rek mu dab la. maanaam boo ko boo ko fooweewul amoo ci yenn caay-caay bu la si yàlla mayul don rek am na ñoom nag ko foowee mais yàlla daf leen ñu dem ba ci kaw ñu jox leen poste rek après ils sont devenus de bêtes politiques. Mm-hmm. mais am na ñoom dañ koo foowee dañoo mbapat seen lépp jaar ci instance yu ndaw yi def nii nekk nii loolu ko manqué nag laay xalaat naka lay def fi ñu toll nii ba ba ba ba ba ba daal di euh, mottali vidéo yi nga xamante ne moo fa moom la moom la moom la am politiquement politiquement il ne pèse pas lourd. tout à fait on nous parlait d'un bloc de l'opposition mm-hmm. bi nga xam ne ñu loon ko jéem a former tey est-ce que mun déjà il y a eu beaucoup de départs euh, si taxaw on nous parle de 26 4 si je me trompe pas euh, jóge qui fa euh, qui dit aussi le maire de Dakar qui dit Barthélémy gaz nga xam ne nous aussi taxawaayam ci biir taxawu Sénégal am na ñoo Sénégal ne sax remettre en question tey Amadou Bay, est-ce que mun ne mun le maire de Dakar ak ki nga xam Khalifa Ababacar Sall aussi qui n'est pas n'importe qui dans ce pays tamit xam ne en terme politique dafa am li nga xam ne moo nekk euh, dégringolade. man de su ma doon euh, ñu leen jege. Mm. dama ne leen alliance taxaw ak Amadou Ba. Mm. pour man bu ñu ko defee du du du du du mélange boo xamante ne nit ñi dinañ ci dinañ ci dinañ gis ne lii euh, am na am na am nu ñu koy mën a waxee sax am na cohérence wala wala wala am na loo xamante ne dañuy xam ne ñii dañoo daje rek pour dara. Mm. xam nga li ma la du bokk ak yeewee askan wi nga xam ne ñëpp dañoo defoon bloc pour jàkkaarloo ak Macky Sall def bloc parce dañoo gis ne kii ni muy doxalee mais yow da nga xam ne kii kii ma àndal tey ji man d'accord moon ak moom tamante nañ dëmm lu nekk dégg nañ ko fi tey ji mu wëlbatu ko parce que ñi ñëw ne rek ma dem ànd ak ñoom pour man bu ñu ko defee tey ji xam nga non seulement dañuy indi benn genre ambara boo xam ne dafay am maanaam di ngay gis koo xam ne dafa doon bëggal voter la kii diw kële neex maanaam ci biir ci biir ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ànd kii neex na waaye kii musuma neex kon léegi te su ma ko votélee naa voté ki ma kon ma bañ leen naa voté xaar ma dem xoole ji kenn ku nekk ci làng ga nële moom kese laa gën a confiance que ñi nga xam ne dañoo àndandoo rek bëgg même même système bi mu bëgg a mhm. moo tax ma ne nañu def très attention ci li nga xam ne alliance yi def pour man ar Sénégal dafa dafa joxe leçon moom ñëpp dañ ci war a jàngatee. Mhm. Sénégal seen vote dëppoowul kese kese kese kese ci ay idéologie ci ay non nangam ak nangam ay ay ay profil yu mac. non non non Ar mhm. Sénégal daf ko wane. parce que bu le docteur Abdourahmane Diouf. Mhm. Thierno Alassane Sal, Thierno Bocoum Thierno Cheikh Oumar Sy mais ñoo ñëpp nga dajale leen. ñi am expérience bu bëri ci wàllum assemblée nationale ak yu nous mel. ñu indi pacte bu jëm pacte de la législature xaw ma lu ñu ko tuddee ak yu ñu mel tek mbir mi indi programme jël affaire bi vraiment nga giseen ay nit yu sérieux mais ñaata lañu am ben député lañu am. ben député lañu am té plus fort lañ jàllee député bobu noonu légui lolu pour man ki tégaat xam nga euh, yàlla bu la bu la bu la fam sam benn waay bu koy faral di expliquer souvent moy bekkaay. Mm-hmm. daf may wax ne Moustapha bu la yàlla fe defee témoin ben problème c'est parce que daf la bëgg mussel ci problème bobu mm-hmm. bu dé borom xel nga ñom tay ji ni ñi former seen coalition il faut ñu jël en compte loolu. Mm-hmm. mais buñ né Amadou bala la rek waa damay jël ki kii nekkoon na ministre kii nekkoon na responsable sangam nangam ak nangam ak nangam ma dajale leen dem bo démé bo moytu plus fort sa ngay jàllaate wala do am dara. Mm-hmm. donc pour man ni ñi construire coalition yi amna ño xamné xam ne ak ñoom coalition sax da nga yàqal sa bop mm-hmm. amna ño xamné xam ne bokk seen coalition wala ànd ak ñoom sax dañ lay yàqal. donté am nañ tour légui nak ñoñu nak nga leen di xam ak nak nga defee ak ñom waxtaan ci def concertation waye dem ko ah, élection rek ubi sa buntu nek ne ku ku romb duggal ku romb duggal non loolu bu ñu ko defee tamit dañuy yombal liggéey bi ñi nga xam te ne moo di eh, camp pouvoir parce que camp pouvoir toujours benn bloc benn bloc lay doon. Mm. bloc compact lay doon bu tëju lay doon. parce que loo waaye fu waaye jóge ak fu waaye mu dugg da nga ci pouvoir bi la. Mm. mais fële yéen ay ay bloc ngeen di am. les blocs qui ont lu il dispersé dafay dafay tout à fait mhm. tout à fait pour terminer, c'est Amadou Ba une dernière question Moustapha mm, si je en résumé. Mhm. l'avenir politique d'Amou de Ba de euh, dépendre si échec la réussite qui nga ramené le duo Bassirou et Ousmane Sonko. Mhm. parce que Ousmane Sonko et Bassirou ont Faye discours de rupture un discours de boo xam même ça euh, en termes d'expérience politique carrément que même ça en termes de diplôme à est plus diplômé mais as dit euh, le fait que Amadou sénégalais yi peut-être euh, interprétation bu ñuy def ci milieu fonctionnaire milliardaire tay dit Amadou Ba donc monde fay tok xaar li nga xam mo nek euh, démarche politique wala sax projet bi fu muy aboutir pour pouvoir vraiment asseoir li nga xam mo nek politique am au Sénégal. non problème bi jiitu mooy Amadou Ba n'a pas encore de discours homme politique discours dafa am solo. mais espérons euh, avec euh, ce lancement moom laa la bëgg wax ak lancement peut-être dinañ am idée ci ci ci discours am discours moy orientation politique moy gis-gisam moy bëgg-bëggam parce que lepp luñu xamone xamoon moy mooy Amadou Ba boo xamante dafa nekkon ci ginnaw président Macky Sall. Mm. lepp lu mam président Macky Sall moko jox moy jël ay ndombal tànk diko jox nangam ak nangam ak nangam Macky chance bi mu amone fofu moy dafa dem euh, Fatick gañe fa. Mm-hmm. liggéey na benn base boo xamante ne dina ci mën a sukkandiku mu doon benn tremplin boo xamante ne mën na ko may mu dem ci kanam mais Amadou Ba amul loolu Parcelles Assainies gis nañ ne mooy loolu. mais il a aussi un autre atout Amadou Ba. Euh, buñ koy présenter on le présente comme koo xam c'est un homme d'État te tamit koo xam générosité ak proximité bi nga xam ne sax am ko ak euh, certaines familles religieuses pour ne pas dire que l'homme est un homme de lobbying Moustapha non non mais xam nga Omar loolu Cheikh Yérim Seck ko ci livre mhm. mu ne Amadou mooy yor meilleur profit bi parce que boo demee kër kilifa diine yëpp moom lañu àndal mhm. mais est-ce que kër kilifa diine ñooy fal fii président mhm. c'est une question est-ce que ñoom ñooy fal dafa changé dafa changé kër kilifa diine ñoom ñëpp nangu nañu ne kenn joxeetul ndigal. Mm. taalib bu nekk dañ lay bàyyi nga xool fi nga bëgg xool même su fekkente ni kër kilifa gi daf la jox bopp du taxaw ne taalibay voté leen diw kon day bàyyi taalib bu nekk mu voté. Mm. ak la ka neex démocratie am fa léegi loolu ba mu fa commencé am ba léegi looy gis yow di nga ñëw ànd ak kilifa gi waaye askan wi du ñu du ñu topp ci kilifa gi du ñu ànd ak yow te kilifa gi du weñ loxoy kenn dem leen ngeen ànd ak diw donc. dafa dafa neexu ak kër kilifa diine dafa nangam ak nangam loolu je pense que débat la boo xamante ne léegi mi ngi suñu ginnaaw. Mm. parce que ak li fi xew ba ñuy falu nii wane na ne tey jii euh, côté boobu il n'est pas dit que ne dama nekk en bon terme ak kilifa yi rek man léegi su ma demee mën naa gagné mën naa gagné réew mi. Mm. loolu lañ doon jaay avant Amadou Ba moom la kër kilifa diine jox bopp bu ko makitaan ne dina am seen soutien dina am nangam ak nangam gis nañ résultat yi mu jur. loolu benn la beneen mbir bi ci topp mooy tey jii maa ngi doon wax ne amul discours dafa am droit indi discours manam innover lan lu bees lay teg ci loxo sénégalais lo xamantene moy waral ñu bayé ñee topp leen te mu wara judd ci période bo xamantene ne dafa am benn pouvoir bam mi ngi doga ñew mm. pouvoir non seulement dundugul usure. Mm. mais amatul amagul tamit ben désamour bu dox ci digëntem ak askanu Sénégal. Mm. parce que ñenn si wa Benno ñokay théoriser ndaw yi bayé nañ leen def nañ ni def nañ leen man dama gëm né gis nga bu ñuy bayé euh, nguur. wala mi yëg li koy annoncer té nit ñi di ci bayé xel légui lu bari moy diaspora bi. li koy annoncé mooy diaspora bi te loolu euh, histoire daf koy yàgg wane élection législative ba ñu gisee diaspora bi daal di dóor dóor yu metti mm. Macky Sall la mm. dañoo jël note parce que dañ ne Macky Sall ba mu doon yéeg diaspora bi moo ko annoncé woon mm. ñu ne ah kon kat bi pa mbiri ngi waaj am Sénégal ñu ne noonoo Macky laajul dafa yeb la ay nitam moo tax ñu gañe ko te gis nañ nañu ci xew après bi ñu jógee wan ginnaaw tey ji bu diaspora bi jógoon wan ginnaaw Ousmane Sonko mën nañ ne benn alerte jóg na pour ne nguur gi am na benn tànk pour ñàkk nguur gi mais fekk diaspora baa ngi koy boot parce bu ñu fàtte ne tey ji dañu am benn influence bu am solo waxuma ne nag ñoom ñoo sénégalais parce que euh, bëriwu ñu fi noonu tamit mm. mais je me dis que ne am na benn benn benn benn benn signal boo xam ne daal si si ñoom lay bàyyeekoo beneen mbir mooy jeunesse bi waaw te ñaar yooyu yëpp dañu gis ne ñi juróomi weer lañ fi defagum mm. donc amaguñu benn usure boo xam ne dundu nañ ko ba nit ñi war leen naa mën a bàyyi ba dem topp ji Amadou Ba. Mhm. moo tax actuellement même kii opposé wu sax da jéem a teg loo xamante ne da togg. te xam tout temps sachant que ne du ñor léegi maanaam damay jéem a togg d'ici cinq ans suñ fa yeggee ma ne ah wax dëgg yàlla kat li ma yàgg togg ñor na kon war naa mën a yóbbu deuxième tour war naa mën a jàkkaarloo wala d'ici dix ans li ma doon togg dina ñor loolu mooy toggin bi mais boo bëggee teg léegi opposition a